suratu al-jaahiliyya saaro aji boor makkee fi ko def makka la illaa qawmul lazina aamanuu wa yëkkati juróom benn la aw saban ci juróom ñaar wa salaam sama ñett sa ayaatan ci kaase bi ci laaj sama wax sama ci ñu ko juróom arrahmaan kalaaji xewal bi laa xumnat bi aadi yaa rahim kalaaji xewal bi laa ci alaxira amin amin allah yaa ta'ala wa muraadi ci ñu bëgg ci amin tanziilul kitaabi wa salaam al-qur'aan min allah ci kanam yàlla ala ci kalaaji bakki borom ala ci kalaaji kalaaji ci yëfeeram de al-qur'aan jëlee ma nga bàyyi ko fa yàlla mu màgg ma de moo ko tax a màgg inna fi samaawaati naka ji nekk la ci bind ak asamaan juróom-yaar wala rek suy juróom-yaar yàlla lu bind asamaan si de salaayam doxab juróom téeméer yaaram doxab juróom téeméer digganteem suuf doxab juróom téeméer mu tegum mu tiim bindee bi ba fi àddina si nekkee ba léegi diggéey bëccëg bi ci wutoonte nooram nawet malaaka yi dëkk ci te tàng di ci wutoonte te gis la kenn fu mu nekkee suuf si de ba mu fi nee ba tey doomu aadama yi dëkk ci jëppale ka tabax di jëmbatee ka baye ka jàppee ka lii doomu aadama la xalaat ba su ñëw gis kenn ku yàq ci suñu suñu war a defaraat nekk na ci loolu laa dañ fekk dañu fekk rek kàttan ak góor ñun ñoo ñu ñëwee jëm ñu amuñ loolu ku ko def tam nekk wóor na ko mooy yow jaam rek bu fi xas ko mu aju nekk rek bind seen yéen bi ma asamaan sax pare na te bind yow doomu aadama ji nga tukki ci loxo man yu gannaaw ak nga jëlee suñu lumbu gannaaw doo foo léegi day doon adama ñu cafañ cafañ yi wa maa yabusu alnarum fasale min daabatin ci daaba ak lumbe bi nga xam ne moom la bind fasale ko day yéeg naa yéeg yéen yéeg xam ne yëpp nga am nañu li ñu ko di leen wër nga xam ne yàlla leen ko bindal tàggatal leen ko nekk na ca ah ñu nekk na xam ne ñoom yokk na ñu ñu wóoru wax ci laa fi léegi aji nekk la ñu wuute guddi wala aare bëccëg bëccëg jam guddi daal di ñëw yëngaloo ko benn riis yëngaloo ko benn wenn waajaay dangay nañ ci bëccëg ba mu yàgg rek nga gis guddi daal di àgg wa ma ansala laa la wasa mata yàlla mina samaa si ja samaan ma def ci laa moom taw ak taw bi nag am na ñu bàyyi ko ci wàllu asamaan waaye yaa tam dundal ci ci moom dara suuf baate moo yaa jëkk naa woo wa tasriij yaay ak toppatiku ngelaw yi di ñëw di jëloo di ñëw di simaal di ngelaw ñëw sedd di ñëw tàng nekk nañ ci yooyu yëpp ayaatum tegtal te xam ñu ñaaraw ñu yàq nañu ñu lañu xelale yoonu jëkk na ne bind gi nga xam ne tey yàlla bind na ko asamaan ak suuf loolu moom lu kës la moo tax ci gëm rek xam na ko la ca tegu nag mu ne saaba yi nga xam ne moom la yàlla bindal tàggatal leen ko loolu yi nga xam ne am nañ gëm ba am nañ yàq yi kaw ci yàlla di ñëw li ca tegu soppandi ci jigéen bëccëg kooku moom na fari la ak ak taw bi laay ko ja asamaan ñu dundal suuf kooku mu ne tawteef la waaye ñaam ñaam ñaqelu ndax ñoom rek ñoo ko mën a dégg rek ñun te yooyu la ayaatu laay ñooy tawteef yàlla ndax doo aadama jàng ko xale ke ceew Muhammad la ci dëgg so bi ay hadiis yi ana son solo yoom yoom ñuy dëggal baaba laay ci gannaaw solo si yàlla waaye ati yàlla alquranam ma jàkku yàlla jëmmam di waxal gëmuloo alquran bi la nga di ko dégg gëmuloo ko wan jan wax nga war a gëmala wala ñun tasak mbugal di kulli afaatin war na ci bépp weddi aakoon asi yiñ ko di bakkaar aakoon def yëpp maanaam ko gënoon dégg aayat la alquran yàlla tut laa def na jàng ko ali bi moom suma yistéroo topp ñu muur ci kéefaram mu fat biram yi mu hajiréyu wayis gëm te àndam yasma daanaka déggumu ko dégg alquran bana fi bañ koo gëm ne ñu déggu ko xam-xam biñ ko déwétal loolu moom ñett am ñoo yem soo fekkee loo xamal ko daa saa leen dugg rek Aliou mu daal di ñetti booy daa Aliou man dem xam na mu ñu naan yaat naa ci alquran alquran suñu seen la ci taxasaa mu jàpp ko mu doon mu ngi lay saa mu doon mu ngi lay jëlee lu laa yëg ñu ne la gars yi loolu waa nag ñoo saa wu mu wër mu mu borom ak dafa leen ñu war a yem aji naka la ca kanam seen jaanamu jaanama wala yow ñu jëlee ci ñoom ñoom maa kasa boole ñu fàggoon sayam dara wala ma tax loolu yaa gën nañ jàppoon ñu loolu laay ci lu yàlla am yaa ñu ne yaa xeer wala mu wàllu ci ñoom asa wu mu wër asile mu lay aji mag rek afa ji la alquran pour dana aji jubal da ci ci réer wala dina ñaan ko fa wala dinañ ba law bi ay sala bi ci alquran borom seen law war na ci ñoom asa wu mu wër ali mu da ñu ngi ci ci ci mu wër ali mu da ñu metti na allahu buur allah yàlla da fi mooy buur bi nga xam ne saxara tàggat na mu làkkum ñaari na albaara ji di tajjireen ngir na daw an fulku bi am ci moom bi am nañu ci digalam yàllaa ci tàggat géej gi ne te saxaar yi ci dox lu suuf day fekk taxawoo am na ngeen sax ñun sax ñu ngi wala alakumaar booyee sax suuna ngeen sant leen ba saxaar tàggat na mu làkk ñu ne leen maa fi sama waat leen ne ci asamaan di juróom yaara maa fi dafay mel ne di juróom yaara yàlla yéen ñu ngi boole ñu ngi ci dafa moom de dina fi daal di xeex naka ñu naka la ci loolu laa dañu fekk lu fekk lu yëkkal foofu te xaw ñu ñaareel woon yëkkal fa xaw ñu dañu xalam de kon dina dina amoon yàqu loolu dina laa jëlee bokkul koosa wàcc na ci xarab bani Mustara mooy muray seen ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënees arajo bani Mustara Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq muray ebal aw saraw jaamam ne ko ne ko rootal joteem ba mu dem guddee lool mu ne ko du la tax a guddee mu ne ko jax jaaw saraw jaamu Umar ibn Khattab moo toog ci dafa seen ba mais kenn du root ci teen ba lu may ba tañ feesalee mbuusam yonent bi ak mbuusam Baabakar ak mbuusam Omar ma toog dem dañ feesalee ci mbuuse yi ba dem ma toog am root ñëw mu ne loolu lañ def mu ne waaw mu ne see ndax am suñ diggante sañi Quraysh yi le moo mooy lay alam waxoon ci seen léeb rek duufalal fa xaj mu lekk la dégg nga wax ji dina li ko fi ñu naan war daal di bocc jaasee ñëw ne yonent bi jox ma ndigal ma tagg baatal Abdoulaye moo bay léegi xéefar la di jullit de sangam moo wax sànq nangam de sangam moo wax nangam de sangam moo wax nangam yonent ne ko yaaram duñu wax sànq mukk ne Muhammad ma ngay rey ay saaba buur daal ne ko waxal li des na ñaan ñaana amoon gëm nañu yàq loolu ñu baal li des na ñaan ñaana laa jona ragal naa yaama laa def yàlla yi rek nañu leen baal rek di ngeen topp yéen si la gis na fa yàlla aw na aw nit maakaanu ci lañ nekkoon yàq ci mën a doon xam ko rek maanaam la ku def na mu saare xam jëf ji yu bëri na fi jëf ji ñaan na boppam ku def lu baax sa bopp ndax sa pay yaa fay jël wa mën a saa ku ñaawal na mu saare war na boppam ku def lu ñaaw sa bopp ndax yow dañuy koy fay su ma ko ñaawal nga ko delloo delloo leen ila rabbi ci jëm jëm ci borom seen de wala xalaate naa moom day jox moom nga misaale ba misaale am ci saaba taw rek wala maa xaate ba jëndi kam wala bu wasa atam yonent ñaan mu saa xaaroon wala sax naa moom seen war sa gëndeel mais tey laa di ci waay tey di ci mën a xelwaat xabar naa moom seen gën leen alal alal mi ngi leen jamono seen rek waaye naa moom seen jox leen béy naa ci kaw de jiw yooyu gis ne la may jëlaat moom mbiram diine la halal ak haram ak yéen ñëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ba maqare foofu wutewul ilaa min baadi ma jaaw dara gannaaw bu dikkalee leen alayhi mu xam-xam wax leen di gaañaan bay na mu diggante seen na rabaka naka borom sa yàq yi dana mu xatte bay na mu diggante seen ñoom xayamati bi tënkal yàlla bi ma kaanu ci lañ ne ko yàqali fa di wute ci ci moom ci mbiram diine de ma jaa naa ko topp mu def la yow Muhammad ala sariyatin ci yoon dina labari ci mbiram diine te tabi a topp ko de mooy sariyatul islam de wala tabi bu topp awa la dina bay naka ñooñu laa la mun a xaw ci jaamu yàlla de innahum naka ñoom lan jox noo jëñal ci ñu am te wala ci dina laay ci mu gësal yàlla sa yam dara way nu wali ñu naka way la dina ba bu ñaan ci yàlla aw yaaw ba ñu way ñu ñaan lañ de wala yàlla moom wali mu taqir ma ay ñu ngo wala yàlla de ha saajira alquran ba saayiru ay layra dinaa fi ñëwaat nit ñi de woo dem tey ak jubal wala ma suñu tey yërmande de xamuñ ñëwaat nit ñi wax dinañ leen dinañ xool de am bay asiba dafa jotu àll dinañ ñaanal une kalamu fàtte nit ñi ak ñaar ko jëlee am ñeent man yàlla moom bu defal leen kër yi ñuy tam ñaañu amoon def nañu ndax def kat yu bon yi dañoo defe ne yàlla dafa leen yemale def kat yu baax yi. saa yu yàgg nañu jooju ci jooju laa wax ne yow dañu jot saa yaa di faral di waay naaf de saa ma jéem wala ma yaawum ak dundu jéem a maatu ma ak deeteem yàlla dana def ñi def lu baax ak ñi def lu baax. déedéet déet du def loolu de saa bon na maa su ma naa xaqi seen de allahu yàlla wa xalaqa laa bind na yàlla samaawaati armaan juróom yaar wala laa suuf bi laa ci dëgg way suñ saa ak ngir na fayal kullu nafsin bépp bakkan dinaa kasabat te lam fagg woon de ndem yiw la ndem ayla de wowum te ñoom laa yusagoon def lu wàññi leen afalaay tas la téema ma ni taxa saka jàppale mu ilaa yàlla ma waaw muy bànneex a bakkanam kéefër ma ngay jaamu doj waaye dëgg-dëgg jaamu doj wa la la neex bakkanam la topp rek tax na la seen bànneexi bakkan mooy xel yàlla waa balaw laaw te réeral te yàlla ñun la xam-xam xam na yàlla ba naatu wacc ko fa dem di jaamu aw doj waxatamata kasta yàlla ala sari ci déggam waxal bi xolam wa jaala tam def ala basari ci bëtam isaawatan umuraay fa man yahdi ana ku dana mu jubal ko min badi laay fekk naaw réeral ak yàlla afala tadakkaroon te la ngeen waaru ba gëm de kooku kenn mënu ko tax a jub de wax nañu maa yéegéen moom dekke illaa xayaatuna dara dundu sunu duniya ci àdduna rek ñu ne waaye dekk yonent bi wax du dara lu mooy dundu ci àdduna rek na muutu danañu deen wa na yaa te dundu ay doom sunu ñun dinañ dee waaye suñ dee bàyyi suñu doom rek mu mel ni deewuñ de oma yudi kunaata dé bi xarak mu ila daaru ndara jamono te yàlla ji ñu rey ka dekkal newu fi jamono fi ne rek bu jamono dundee leen ñu ba mu yàgg rek jamono ñuy rey wama lahum déen ña leen di taalika ci jël la wax neen ñun xam-xam de in hum déen ñoom illaa yazunnuna dara danañu njortu njortu de way saa tullee dem jàngeef naa leen ci ñoom ayatuna alquran sunu bayyinaatin di muñ di way reer ay lay maa kaana nekkut hujjatuhum di lay seen ñoom te la am xaaroon dara wax seen iitoo di kegen bi ab ay naa ci bàyyi sunu in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggal dem dekk dëgg na indi leen ñu suñ bàyyee deewoon pour waxal ne daaw yàlla yuhyi kum dana mu dunda leen ba ngeen nekkee toqante maniyu su ma yumitu kum topp dana mu rey leen fa jeexal dig seen su ma yeen ñoo kum topp dana mu boole leen ngeen di way dund ilaa yawmil qiyaamati jëppee jëm yàlla laare ba dee picc fii ci moom de walaakin na lu fi nekk aksara naasi gën jëbbali yéefari laa yàlla mun a xamuñu loolu de wali laa aji nekk la ñeel yàlla mun ko sawaati gurak asamaani juróom yaar wala day suñu juróom yaar wa yow ma taqawum bés ba dina taxaw saxatu bés tëj yow may suñu bésab keroog yaxtaru dana perte an mu turoon a way wedd ña def waxtara aji saanga kulla ummatin yëpp xeet ci xeet yi jaasiyatan ñu di woy boo keroog xeet wu ne daañ leen xeewal ñu bóof ci seeni hoom de kullu ummatin yëpp xeet tuna def naa waa leen ilaa kitaabi añu jëm ci téere seen de xeet wu ne ñu ñëw ko sa téere jëfa gi yaay jàngal sa bopp ba ne dexe naa wala nga jàng ba ne taxe àddina rek al yawma tey tuñ sawra deew na fay leen maa kuntum la ngeen nekkoon ka ma doon jëf ko buur na aasaani le kitaabuna téere sunu aasaani le kitaabuna diiwaana way wattu sunu haa yan tëkku dana mu wax alaykum ci yéen bilaa ak ci dëgg karme yi malaaka yi doon bind seeni jëf mi ngi te dëgg rek a ci nekk loo ma sa bind loo ma sa def wax nañ ko loo ma sa wax loo ma sa def bind nañ ko lool ma sa wax itam bind nañ ko dinaa naka nun ku naa nekkoon nun yàlla na sam sa ko ci bindulu maa ko tur la ngeen nekkoon te amaloon doon jëf de fa amal la dina laa ñu ñu amoon gëm nañu waa ngoo doon jëf sax de ati farata ak naa fi de koy xelum dana xarta leen la boom borom seen firamati ci aljanam ji rek daali ko le woo moom alfaw bu moo di taxe am binu gëri aji bit wa amal la dina laa ñu nekk farowet nañu daañu leen wax ne afalam takku ndax nekkutoon ayati alquran sama tur laa dee jàng ko aleykum ci yéen fa takbartum te ngeen wéylu ko kuntum te ngeen nekk xawman di nit mujrimiina ñi di way weddi wa idaa qiila ne waxee fa ñaa leen ee yéen yéefar yi inna wa'da laahi naka dëggalal yàlla kii dekk xaqun aji dëggu la wa saatu bés pay ci moom itam aji dëggu la laa lay ba dee sikk te haa ci moom kultum ngeen wax maana bi xaw nu ma saatu luy bés pay inna wanu dee nuy njort ilaa wanan bare njort inna wanu déem nañ njort yi laal maanaam dara njort rek waaye xoolu ñun gëmuñ ci dara wa maanaam waaye déet ñun ci mustaqim ñu di way xoolu wa ba daata feeñ lawum ñaar leen jaalaaxira nag te yaatu maamiloo way ñaaw yi la ñu jëfoon de waxaaka tawa ci jiim ci ñoom maakaano lañ nekkoon yastahduna di yéeg bii ci moom de waqila tawaxeer al yawma tay nan feekum nan feekum la ñuy bëri leen ci safara si kamaa nasiitum naka ngeen bëri woon liqaa yawmikum dajeeg bés yéen xaasaabile de wa maa laakum sax waay seen naaru safara wa maa laakum deen ñee leen min asirina way tere mbugalam yàlla de daalikum loole seen de anakum ci saa dina kay yéen istaxabtum jàppoon ngeen ayaati la Qur'an yàlla xusu am mu di lu ñu yëggi wa qarratkum taxab leen alayaati dunya dundam àddina ngeen wax ne dekki xamu di hisaab xamu fal yawma tey laa yuxrajuuna defu génne leen min ami tukki ci safara de wala um deen ñoom yastahsabuuna defi delloo leen ci àddina ngi tuub walillahi aji nekk la ñaar yàlla alhamdu cant mooy meloo rafet rabbi samawati yàlla kay borom asamaani juróom yaar wa rabbil ardi kay borom suuf rabbil alamin borom bindeef yëpp di teg ci néeg waaw lu dul ñoom wala la woon ñaan na ko al kibriyaaw ak rëy na ne moo di làmbaayam a màgg moo di ñagam bu xëccoo moom ci yooyu yaar mu sànni la safara ta du faale ci samawati ci asamaani juróom yaar wala rek suuf juróom yaar woo moom buur al-aziizu mooy aji not ci nguuram al-hakiim mooy aji xarañ ci jëf